bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin nu dellu sunu bindu laysal birru tey mooy sunu juróom ñeenteelu jotaay muy xasiid ak si ahmad bamba radiallahu ardaahu yal yàlla fayal nu ko te yàlla taas ñu ci barkeem ni ko la fi waxe sëriñ bi radiallahu anhu nee allahu jalla ahadun wa huwa samad laysa lahu min walidin wala walad ndeysaan ñaar ñaar daal man gisuma ku ca ku ca jiitu sëriñ bi ku ko ci gën a rafet am mbay akoo doxin waaw man man nag laa wax bu jëkk bi mooy tawxiid waaw jox yàlla wàccu waayam ndaxam yàlla moom kawe na kawe boo xam ne kenn mënu koo jox wàccu waayam moom daj waaye sàmmoon teegi teggin digganteem ak boroom ak gëm ko te doyloo ko loolu nun waaw gisuñ ci ndend ci sëriñ bi yal yàlla euh, gërëm ko daal na ca sangam ba fa ca sangam ba jaaroon rek foofa la topp di ko roy ba ca tege mooy gëm yonant bi ak di ko tagg ak di ko topp taggin wu rafet loolu gisuñ ci ndendam loolu nag nun noo ko gisut waaw nun noo ko gisut nee na allahu yàlla jàlla màgg na ahadun kenn la waxwata moom de assamadu mooy ka ñuy jëmale aajo ya ca moom laysa lahoo amut min waalidin ci aji jur wala wala du caaginu doom walam yekkunte nekkut jàlla màgg na lahoo di ko ñeel ku fa an ab ahadun kum mën a doon ahadun kum mën a doon wasarmadan taba faw woo faw waaw bil mulki ca nguur ga wala xam ne ak cant ga in farada da koy wéetoo rek maanaam moom dong moo koy moo koy moo koy yeyoo ashhadu man Sëñ Tuubaa maa ngi doollee seede ne annahu naka moom al ilahu mooy buur ba de alwaahidu bay kenn wa anna ahmada naka ahmad mooy muhammad ar rasulu moo di ndaw la al aabidu lay aji jaamu yàlla ndeysaan ah ci yàlla nee na sunu borom subhanahu wa taala waxoon naa leen xasiida gii sëñ bi day jël alxuraan di ko way fi ne yi qul huwa allahu ahad la fi way qul huwa ahad mu ne yàlla saa borom mu màgg mi moom de kenn la tayit moom mooy asamadu asamadu mooy ki nga xam ne kenn mënu koo ñàkk waaw yàlla moom kenn mënu koo ñàkk kenn faaw nit ñi lañ koy yittewoo moom boroom bi nee na yàlla moom moo amul doom amul waajur tayit amul am nawle nag a amul dendandoo yàlla saa moom yi ak nguur ak cant gu ko ñeel kooku moom rek moo koy wéetoo nguur kon nguur nguuraan yii di nuru nguur loolu dara waaw nguur goo xam ne euh, mënoo fexe sax ba weñ weñ du la dal waaw weñ du la dal weñ du nguur goo xam ne léeg-léeg nga ne lasiim ñu gàddu di wëri docteur yi di wëri ku dimbale buur bi <laughs> buur bi kooku du buur waaw waaw ak cant tamit yàlla rek moo ko yeyoo Sëñ Tuubaa man dey maa ngi seede ne yàlla rek mooy buur boo xam ne mooy kenn mooy benn buur maanaam amul beneen buur maa ngi seede tamit ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ndawam li nga xam ne moo gën ci mbindeef yàlla yi ndax gis nga al aabidu al aabidu ni ci defee alif ak laam di ko ko taarifal mooy ki dàq jaamu yàlla ndeysaan ndeysaan nee na lëxoo ñeel na ko moom yonent bi wali rusuli ak ñeel yonent yépp wal anbiyaa yi ak ñeel anbiyaa u yëpp mooy ñi ñu solo ñëpp aska salaamayhi gën gaa selli salaatuk salaamu bilantiha gu amul yemukaay waa ci lu dul dog ci lu lu amul daytal ndeysaan nee maa ngi ñaanal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak mbokki yonante mi ak mboolem anbiyaa yi waaw rusul buñ ko waxee mooy ku yàlla jox xibaar ba noppi yebal ko ne ko demal nga jottali ko waaw nabi yi nag mooy anbiyaa mooy ñi nga xam yàlla jox na leen xibaar waaye euh, joxu leen ndigaloo ñu yaatal ko waaw firi moom moom la ëpp lu ñuy jottali donte waroom xam wax nañ ci yeneen wax nag hmm, wax ci yeneen wax kon xéewal ak mucc yàlla na doole nekk ci yonant bi doole nekk ci mboole mbokki yonantam yi boo xam ne amul fu mu yem nag lu adduna gën a yàgg rek muy gën a dem sëriñ bi nee na ndeysaan fii nag day tagg yonante bi tagg yoo xam ne képp ku sopp yonante bi sa xol dana ci yëngatu waaw sa xol dana ci yëngatu waaw nun de neex na lool sunu xol waaw nu ngi koy seedaru borom bi ndeysaan muhammadun sayyiduna muhammad salla yàlla na dooli xéewal al allahu yàlla alayhi ci moom ñu ne ko waaw loo ci wax mu ne xaddamahoo jiital na ko de al mawla buur ba ala siwaahu ci kudul moom sawadahoo sangal na ko fii man madaw ca ñëwëy wa wu ak ci ñi teew wa fi lësin ak ci ñi nga xam ne istaqbalu xalset nañoo jublu si faltansuru kon nag na ko dimbali akrim maa yéem maa yéem bihi ci moom akrim kaaw teefi tedd nga la ko wala fii firee bihi ci moom abdan mbiru mu muy ab jaam rasoolan tey a ndaw sayidan tey sang muqaddaman di ku ñu jiital alal waraa ci mboolem bindeefi mu ayyadan di ku ñu dëgëral ndeysaan karramahoo teral na ko de almawla boor bi alal kiraam ca kaw way tedd ña laysa yubaahi déet di mën a puukaranteeg moom zawal ikraami waroom Euh, tedd nga ja wala waram euh, teraanga ja te nga xam ne tabarkàlla yàlla defal na ko teraanga nee na muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw mu ne kooku mooy ki yàlla jiital ci kulul moom nag waaw wala si faaqa siwaax min al baraya bi huda moo kawe ñépp yonent bi moom kenn du maanaam gàtti ëllëwoo mënta weesu ngay tudd yonent bi defe na am na comme tollool waaw lu métti la ci xol nga gis ay taalibe ñoo xam ne dañoo xam ne sëñ Tuubaa lañ topp léeg-léeg di eh, dugg ci ay débat yu ne waaw sëñ bee gën a yonante bi ñoom parce que dañoo xamut lii ndeysaan li gën a métti nga am nit nit ku baax te xamoo ko moonu dal ñun ñu bare bari waaw li sëñ bii bind da ngay topp ay xisaak ay nettali rek ndeysaan yàlla da koo jiita ala siwaahu ku dul yonante bi moo la gën mu ne yàlla da koo def mu nekk ab sang ca ña njëkkoon a jàll yonante yu baax ya mooy seen sang ñi teew di dund mooy seen sang ñi ñi ñëwi mooy seen sang waaw am na fu muhammadun xayru man xaabu wa man xaduru muhammadun xayru man lillaahi xad sajada <laughs> ndeysaan ña jàll ak ñëwee yëpp fii rek parce que ñett yooyu ñoo am ñi nga xam ne weesu nañu ak ñi teew ak li ñëw nee ñoom yëpp yonante bi moo leen gën kon nag li ñuy jariñ mooy ñu dem dimbali ko mu a yonante bi ndeysaan maa ko yéem maa yéem jaamu yàlla bii di muhammad tey ndawam maa ko yéem yàlla day dëgg la bari na ay nit ñu baax waaye da koo jël moom mi tànn ko mu jiite leen ñoom ñëpp nee na kenn du jéem a am daraja di yëkkati ko ay mbagg ci kanam yonante bi sallallahu alayhi wasallam loolu mënta nekk loolu loolu mënta nekk <laughs> ndeysaan bëggee yonante bi day waaw bi lii moom ab jullit da cee war a feer ijji yonante bi sallallahu alayhi wasallam moom moom moom jàll na laysa yubaahihi deesul mën a puukaranteeg yonante bi du mën a puukaranteeg yonante dawul ikraami oram teral kenn ku yàlla jox ak mbaax ngay ko yonante bi wala ngay daan jege naa ko déedéet moom dañ koy teg nee mu nekk ab sant ñeel ñépp yaminuhu loxol ndeyjooram nekk na ca nadan am tab li muslimin ñeel ab jullit shimaaluhu loxob càmmooñam ba nag fiihaa nekk na ca radan alkate li mujrimin ñeel ab yéefar li sëñ bi li mu koy wax bari na lool boo demee ca mawaahibu boo demee ca raaya day wax ne yonante bi salaa day wax day tudd loxo rek loolu misaal la mu ne yonante bi salaa bu dee ab jullit la li ngay gis ci mooy ak mbaax ak yërmande ak yéene la jàmm ak nàngam ak ak di la may ndax lan yàlla gi nekk ci jullit bi waaye bu dee ab yéefar la nag tar tar tar ak euh, tabarkàlla nam koy waxee ca raaya rek kiltaa yadayhi laha saayun tulaazimuhu bazlun wa basun liman laa nuuman jaamu wana ma ci ma wax jannaatu haadi waaye niiraanu aadi waaw alquran moo ne ashiddaau waaye ruhamaau baynahum nee na jullit ñi dañuy yërëmante seen biir bu ñu nekkee ñoom biir waaye nag ku yéefar boo xam dafa dafa bañal yàlla jóg di xeex islam ko moom julli ñi dañuy taral ci moom lool moo tax ma ne nday yonante bi sallallahu alayhi wasallam day xéewal ak jàmm ak am tab mu rëy moo ca nekk ñeel ab jullit waaye bu dee loxob càmmooñam ma nag ca lay dàqe yéefar yi nga xam ne ay saay-saay lañu mu ne nawafahu nawafahu setal na ko ba mu set wicc arab bu buur bi minal adnaas ci xeeti tër yi jumlatiha mboole seen da ko feddali fasaara mu mujj na xayru xayran naasi di ki gën ci nit ñi wajhu nabiyi xar kanamu yonante bi al Mustafa kade ko ñu tànn xayril basar kay ngën gi mi def yux jilo dana gàccaal shamsa dawhatin jantub yoor yoor xayru baxara fu mu feeñe inna lësi naka waa ji yi nga xam ne lam yarahoo gisul ne yoront bi xayral xiyaar mooy ki gën ci tànneefi yàlla yi foofu kooku safihum aji dese la laa yufaariqu du tàqali ko mu bawal alkane baana feeñ na te du nëbbooti uluwahu ak kawem uluwuhu uluwuhu waaw kay wu la minallaahi ca yàlla al ahad kay kenn wala nabiya te déet benn xeetu yonent baadahoo di ñëw ginnaawam fii maa warat ci li ci li ci alquran ak sunna mu ne yonent bi sallallahu alayhi mooy koo mooy sërëfoot mooy koo xam ne dara ci ay xeetu luñ ko mën a tuuma wala lu taq waaw mat al insaanul kaamil bi nee na dara tëqu ko amul dara luñ ko mën a xase wala bokk ñu naan moom bu bu bu ci yokkoon lii wala bu waaj déedéet lépp dafa mat yàlla da koo seetal ci mboolem taq-taq yi looloo tax muy kii gën ci nit ñi ndax ku dul ku dul moom nag da nga am ay danga am ay taq-taq nee na xar kanamu yonente bi salaahu salaam day mu daa bellee di leer ak ni muy wuññee njàqare nee na moo raw jant bu feeñ ci njolloor leer lool jant bi bu génne ci njolloor njolloor mooy jamonoy diis rek diggante boobu ci la bokk nii jant bi leer nga xam ne dara du lëndëmati jóge nañ ci guddi ga yonante bi sallallahu alayhi wasallam xar kanamam moo gën a leer ndeysaan waaw moo gën a leer waaw waaw yaf yaftaru fii asna tisaab kal barq suñ tubaa ne yonante bi bu masaan a lëndëm bu muuñee rek eh, ndeysaan bëñ yi feeñ nee na bëñ yi danaan tàyyi mel ne melax kooku xam nga wute nag jant bi mhm. nee na képp koo xam ne dangaa gisut ne yonante bi moo gën ci tànneefi yàlla yi waxuma ñi ci des tànneefi nee na kooka dafa am feebar boo xam ne bu ko dal mooy li ma wax mooy kooka xamut li xew safihun ku dese la te kooka nag ci alka ci du tàqal ko mu alkane nag waaw ah, te yahuud ak nasaraan moom loolu lañ jàpp yahuud ak nasaraan loolu lañ jàpp kon yonante bi sallallahu képp ku koy wutal ndeen rek da ngaa yor pas-pasu yahuud ak nasaraan da nga leen a leen a nuru ci wàllu googa da leen a nuru ci wàllu googa waaw ndeysaan waaw cey mhm. am na foo xam laxat maana la waxoon de laxat maana man wanna al muxafa muhammadan yuxaaki walidan qad aw sa yóladu ne na ku defee ne am na koo xam ne dana tolloog yonante bi ca ña jàlloon wala ñi ñi ñi ñii ñëw nee na kooka wax na lu du dëgg nar na la xadd maana nar na waaw kooka wax na lu du dëgg nar na nar na de kon loolu la yàlla dogal nee na yonante bi sallallahu alayhi kawe gi mu kawe fa yàlla borom bi subhanahu wa taala loolu dafa feeñ ba nëbbootut dafa leer naññi teyit nag ginnaaw bi ko yàlla yónnee ba noppi amul benn amul benn yonent buy ñëwaat ginnaaw lii moom la alxuraan wax maanaa yonent bi moom bu xasee ba jàll te jàll na amul képp ku ñëwaat ci ginnaaw ne ab yonant laa ñu ne ko uhun waaw ñu ne ko uhun bu fekkee am nañ ay teggin ne ko uhun rek noppi waaw ne ko uhun <laughs> ndeysaan na nag ci ginnaaw yonent bi ñu woote ay yonent ñu bare bare bare bare bari bari na sax ci jamono jamono jii nii rek ak jamono ye weesoog waaye jamono yi fi yonante bi doo ko jógee rek bal bi muy dund sax laata fi at am na ko doon Musaylamatul Kazzab waaw ginnaaw bi ñu bare bare bare woote nañ ak yonante waaye ñoom ñëpp gis nga seenu mujj ndeysaan eh, tabarkàlla ak yonant fii nag sëñ bi waxut wala rasula ndax boo waxoon ne wala rasula baadahu maanaam ndaw du amati ginnaaw nit mën naa ñëw daane man du ma rasul waaye nabii laa te kon day wax dëgg ndax nit mën naa nekk eh, mën naa mën naa bañ a nekk rasul nekk nabi naan nabi mooy koo xam ne am na xam-xam bi waaye sëñ bi da koo kar dana wala nabiya nga xam ne léegi bu fekkee yonent amut ndaw du mën a am maanaam ku ñëw daane man dëgg la sax du ma rasul waaye nabi la dañ laa ko déet nabi nabi bala ngaa mën a nekk euh, bala ngaa mën a nekk rasul faaw da ngay jaay ci nabi ba noppi di waaw maanaam nit mënoo nekk rasul te fekkul nga nekk nabi ba noppi moo tax Sëñ Tuubaa dagg ko foofa nag wala wala nabiya ku yàlla di jox xibaar ak rek du amaat ginnaawam waxuma ak nag ku muy jox xibaar doog la yónni ku muy jox xibaar doog la yónni waaw mi ngi noonu dafa naa leer na ñi jàng xam nañ ko maanaam nabi ak rasul nabi moom nga njëkk a jot doog cee teg rasul nga xam ne bala ngaa nekk rasul moom faaw a ngay jot daraja ji ba noppi léegi nag daraja ju njëkk ja nga xam ne moom nga war a njëkk a jot suñu tubaab neen da du amati moom waxuma ngay ngay dem ca daraja ñaareel ji nag moom nabiyuna sunu yonent bi almuxtaaru kadi ku ñu tànn laa yubaara déeful mën a rawanteeg moom fattabiuhu na ngeen ko topp ayuhan nasara yéen nasaraan yi innal yahuda naka yahud ya farratu dañoo sàggan fii muusa ci muusa wa antum yéen chrétiens yi wa antum yéen nasaraan yi afrabtum da ngeen a ëppal fii isa ci isa saa akum naqari na leen kawnu nabi nekku yonent bi al mustafa kadi ku ñu tànn xayral waraa dikk gën ci mbindeef yi wallahi famaa li daa ikum dédd ñeel seen feebar bi shifaa un benn xeetu saafara mhm. yonent bi saa sam nee na kenn mënta rawanteeg moom buñ ko tëkkalee kenn waaw te tëkkale kenn ndeysaan waaw ni mu ko waxee woon <laughs> waaw falaa taxisub na abdullahi bil fudala suñ tubaa nee na dimbale leen ma wattandiku leen di jël nit ñu baax ñi di ko di ko di ko dend ak yonent loolu bu leen ko defati falaa taxiisu maanaam di jéem a xaw a kii sax dee waaw waaw loolu ëpp naa def nee na dëgg la biddiw léeg-léeg dana leer weer léeg mu leer ba jaaxal nit ñi waaye bu ñu tudd seenu leer nag daa fekk jant nekku fa bu jant nee fàng nag kenn dootu gisutu weer kenn dootu gisutu biddiw yéen yahood yi da ngeen a sàggane yonentu yàlla Muusa lu ne mu defal leen ko lu ne mu defal leen ko lañu mujj wax Muusa ba leen Muusa sooyee ca Firawna ji xar géej ga def lépp nga xam ne foofu la waroon a tuubee sant yàlla ij'al lanaa naa kamaa lahum aaliha waaw ñu romb ay nit ñu ñuy jaamu aw ñuy jaamu ab xërëm ñu ne Moussa euh, dañoo bëgg nga defal ñu yàlla ju mel nii ñun dañoo bëgg yàlla mu ñu jaamu ñu di ko gis loolu bor loolu la njëkk a fayee yàlla waaw bu meen tàqale koog Firawna yor leen ay at di leen toroxal nekkoon dictateur bu mag xotti géej gi ñu gis Moussa lépp mu defal leen ko bañ jéggee lañ fayee yàlla mooy musa dañoo bëgg nga wutal lañu yàlla joo xam ne dañ koy samp nii di ko jaamu waaw axayrallaahi <laughs> abxiikum ah waaw da ngeen bëgg a weccoo yàlla ak bant bu ñuy jaamu da ngeen bëgg a weccoo yàlla ak bant bu ñuy jaamu te yàlla gis nga wa faddalakum alal aalamiin xoolaa xam li mu leen defal lépp ndeysaan waaw kon da ngeen koo sàggane nee na bu dee nag ñi nga xam ne moom dañoo wax ne Isa la ñu topp ñoom dañoo ëppal ca moom waaw ne doomu yàlla laat nangam nangam loola ba tey ëpp na Isa du dara lu dul jaamu yàlla nee na yéen li leen metti mooy yonent bi li mu nekk di ki gën ci mbindeef yi bu fekkee loolu moo leen metti nag feebar moom du am saafara mukk waaw feebar boobu du am saafara sayyiduna assayidu moo di sang ba li saadaati ñeel mboolem sang yi jafa uh, wow na bihi ca loola xalamu dil minnaati xëlim ak yàlla mi borom xéewal ya bi jaahihi ci darajaam moom yonante bi xaraja la génne kullu xalqin bépp mbindeef min aadamin ci ak ñàkk bihi tukkee na ca feeñam in fitaaku ratxi tayyik lañu tayoon yaa rabbi yow boor bi salli yàlla nga dolli tedd nga salli faaw wasallimanta nga dollee musal alayhi ci yonant bi fii jimuuhi ak ci mboolam ci mbooloom ma wa nga màggal ko ndeysaan ne yonante bi salaa salaam mooy sangub sang yi sayidu saadaat waaw mooy sangub sang yi ñoom ñëpp nit ñu baax ñëpp mooy seen sang te nii na lii rek dogal bu yàlla dogal la jeex na moom du dellu te ginnaaw jafa bihil xalam bu ñu ko waxee rek mooy euh, am na dogal bi moo jël nañ ko nag kenn mënu caa dellu ginnaaw waaw <laughs> <laughs> mi ngi noonu yëre a kaabul waaw nee loolu yàlla dogal na kum naqari ci ngay faatoo ba ba nga bëgg ci rek nee na sax képp ku am sax yàlla mbindeef yi mu bind sax mi ngi leen bind ci lan mi ngi leen bind ci barke bi yonante bi sallallahu alayhi wasallam waaw woon def naa ne euh, tabaarkàlla ca euh, xasida ya ne sabab sababi kulli nasami waaw ne ñaan ku ku ku ku yàlla bi sallallahu alayhi wasallam moo tax waaw maanaam maanaam ci barkeem ci ak leeram ci ak nangam la yàlla bind lépp nee na bi jaahi xaraja kullu xalqi ci darajaam la génne jóge ci ak ñàkk tey nee na yonante bi salaa salaam bi mu feeñee rek la mbóode yàlla dencoon may yu rëy ya tuyaaba ci la ko yàlla taaye maanaam bu doon ab kondaane bu ñu daaj la ñu ne bi liir bi juddoo ci lañ ko dajjee nag xéewali tasaaroo xéewali tasaaroo xéewali yàlla yërmande sunu borom lépp mu ne sunu borom kon maa ngi ñaan yàlla nga def jàmm xéewal muhammad salaa salaam mook mboolem ñi nga xam ne ñooy ay saxaabam yi ànd ak moom nee na lii hëb yàlla nag ma may bihi ca darajaam maa loo xam ne laa yenaaluhu du ko mën a am si waa man ba mu des ña nga xam ne laa sa laasamuhu taqoo nañoo moom wax fi ni da nga fegal ma kul la jawan lépp njàqare wajjahtu jëmale naa waccee sama jëmmu ilayka jëm ci yow yàlla saa ilan di aji ñaan muxtariban may aji nekk ab ku tumaranke inda nasaara fa nasaraani xaa ilan di wax baa di di waaji ñëw ndeysaan xaa ilan di wax baa di di ñëw loo xam ne xay na ñenn rek ñoo ko mën a am moo ña taxawoon ak yonent ba daa ko liggéeyal waaye ku ñoom nag ma may loo xam ne kenn du ko am te nga musal ma ci lépp loo xam ne xeetu njàqare la suñ borom tey jii de maa ngi taalal saay loxo di la ñaan man sa jaan bii bi ma lay ñaan na fi maa ngi fi maa ngi tuumuranke ñu génn ma sama réew nasaraan yi téema fii bi ma lay ñaan baa yi laa wax baat yeen la alhamdulillahi cant de aji saxla di ñeel yàlla ëllësi yàlla mi nga xam ne laa ushriku déet ma du ma bokkaale shay an dara bihi ak moom xëy na nasaara waxtu waa nga xam ne nasaraan yi ànd ak man moom asrakoo ñoom ñi ngi bokkaale yàlla sa altuhoo ñaan naa ko bil Mustafa ci daraja yonant bi xayril anam mii ngeen ngi bindeef loo koy ñaan mu ne taajila awbati yi gaawal sama ñibbi ila daari salaam jëm daaru salaam sa altuhoo ñaan naa ko walaa yarudu te fekk xam naa ne du delloo de saa ilan aji ñaan kaw nii sama nekk raaji an di aji dellu li ahli jëm ca ñooñ ne kaamilan di aji mat sëkk nag fekk tërbiya ga mat na liggéey bi mat na kon bi maa ngi lekk ca géej ga nasaraan yi eh, di ma bunduxataal wala boog di ma jiim bunduxataal ma tumaranke lool waaye xam naa ne am naa borom moo tax maa ngi taalay saay loxo bala maa ñaan moo tax fii sëñ bi dafay jàngale teggi ni ñaan gis nga la muy ñaan mooy lële mooy lële waaye gis nga dafa jiital bàkk yàlla kañ ko moo tax moo tax teggi ni ñaan lu ma ta sàmm la nit ñaan na ba sonn yàlla nangulu ko fekk dafa jaarul ca teggi ni rek dafa jaaru ca teggi suñu suñu njiiti réew yi nga xam ay ay jaam lañu yu xeebu fi kanam borom bi gis nga sax booy wax ak ñoom day ay waat yooyu jëfandikoo soo nekk naa soo nangam soo nangam waaw ah, moom sa moromu jaam la rek moo xam ne ëppale wala dara mm-hmm. rawatina borom bi moo tax da koy njëkk a màggal yow yàlla de xam naa ne cant yow dong yaa ko moom man nag du ma la booleeg dara dara dara laa ushriku shay'an bihi yàlla du ma ko bokkaaleeg dara jamono ji nga xam ne ñii nag ñii sa gaa yi ma ñoom ci bokkaale la lañ dëkk mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne Isa lañ topp mooy nasaraan ci bokkaale la ci bokkaale la lañ dëkk ci bokkaale la lañ dëkk ndeysaan bokkaale yàlla suñ tubaa ne leen na ngeen ko wattandiku te moo di cërub yàlla ngeen di ko jox koo xam ne moom ab jaam la waaw ab yàlla ngeen di ko jox koo xam ne maanaam ab ab jaam la ëpp naa def waaw laa ko billahi yaa ixwaani daana ñaane allahuma inni audu bika an ushrika bika shay'an wa ana alamu wa astaghfiru mimma laa alamu loolu defe naa ci yonent ba la jógee sunu borom maa ngi lay ñaan yàlla nunu ma dimbale ba bu ma la bu dara bu ma la bokkaale mukk bu fekkee am na lu ma ci jot def ñàkk xam jéggal ma ko loolu lu mat a ñaan la bokkaale mën nga ko def te doo ko yëg looy ñaan mu ne maa ngi lay ñaan ci barke bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sama tërbiya gii sama liggéey bi mu gaaw àgg ba ma delluwaat Daaru Salaam ak Touba waaw waaw Daaru Salaam tayit jamono ji ma tàllal la saa loxo di ñaan yàlla wóor na ma ne yàlla moom du delloo sama ñaan du delloo sama ñaan ndax moom moo ne ñaan leen ma kon nag maa ngi lay ñaan ma gaaw dellu ca njaboot ga fekk nag lépp mat na maanaam ànd ak mat tarbiya gi mat na ndax sëñ bi daa demoon ci géej ga ngir ak uh, tuumaranke gu mëntoon a ñàkk rek nag uh, yal na yàlla uh, bar defal ñu barke ci barke tarbiya googe te tarbiya tarbiya waale ñu ñu ci ba su nuy xol defaru sunuy jëmm defaru te nu faata waale ko te dekk waale ko allahumma salli ala muhammad wa sallim wallahu a'lam